عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالظفر نيسي متن الأربعين النووية تاينا نيسي حديث التاسع الحديث التاسع من حديث جرم ينتل سي آه، ترتيب الأحاديث في الكتاب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم آه، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم حديث بي أبو هريرة موكو نتلي جليكو سينتبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعت دما ديق أبو هريرة منجي تدو عبد الرحمن بن صخر الدوسي بكون سي صحابة يقولون جاك ينتبي صلى الله عليه وسلم بنكون بكون سي تالي ينتي صلى الله عليه وسلم أكسي دنجا nga ñi nga خدمة نكون صوفي بمقمم أبو هريرة دنجا ما أقبل لون سلوا حديث جلي كسر النبي صلى الله عليه وسلم مي جعل بين خامن خصوصية بين خامن مملكة يلا جو خل مني خلول مقير سي دق وخيون النبي ويقير سي مكالكو ويقير سي جوه كتمي <coughs> تيجي آه، مسائل الدينية سيجي فيني مم بين سواروري بس كنون سال القرآن الحديث لنجلي سن مس سن سن مسائلي تمام مو أبولين سال الحديث كن أم نسي حظا واهرا أنا أبي هريرة تجلي نسي أبو هريرة نكوي وي بايو موسمي مي تأدبان ينان برم موسمي عبد الرحمن مو عبد الرحمن بن صخر دوم صخر رضي الله عنه يلوك يعني يلقرم قال وانا مو ابو هريره سمعت ديغنا رسول الله انت يا النبي صلى الله عليه وسلم الله يلا عليه سمو وسلم تدولك مسل ان ديغنا انت بي يقول مي وخنان ما نهيتكم لمن ترى عنه سيلو سموم فاكتنبوه نين كتير ما نم فتركوه نين كو باي وما امرتكم لمن اندي قلبه سموم fatu na ngeen dikkee minhu si loolu ma leen digal mastataatum seen kémtalaay kattan mastataatum li ngeen mën yonent bi nee na lépp li ma lu ma leen digal wala boog lépp lu ma leen tere bay leen ko ba mu wicc wicc wicc bu leen si toggoo dara dégg nga bul jéem a dugg si dégg nga yu lënt yi di jéem a ut lay wala dara yonent bi teree na la ko rek teree na la ko dégg nga yonent bi sallallahu alayhi moom la yàlla yónni xamal ko yu baax ak yu safaanoog lu baax ne ko soo àggee lu baax lii digal leen ko ne man yàlla maa leen ko digal yu suufe yi ma leen tere tere leen ko ne yàlla man maa leen ko tere yonent bi nag ñëw ba yegg si si ñun ne ñu comme que yàlla ma yoon te moo ma te moo ma seede si alquran wa maa yantiqu anil hawa man du ma wax sama bànneexu bakkan kon lépp lu ma wax moom ma ko wax loo kon nag lu mu leen digal jàpp leen ne yàlla moo leen ko digal lu ma leen tere jàpp ne yàlla moo leen ko tere kon nag lépp lu leen tere na ko bàyyi وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لب لون ينتبي اندل نين كجل جيل لب لوم لين تري نين كو من يطع الرسول فقد اطاع الله نوم لا يال دغل سال ني كيب كو توب ينتبي يالا لا توب باسكو موم قلم حالم وخم جفم امول دارا لوسي ووتيك ndigalu yàlla wala tere yàlla non déedéet nag su la waxee bàyyil bàyyil doomu aadama rek léeg-léeg am ku yebal diw si ab barab wax waa barab na leen diw lum wax maa ko ko waxloo lum diglee maa ko ko digal lum teree maa ko ko tereloo topp leen te kooku di wax loolu yàlla ko gën a foor kon yàlla mu yónnee yonent bi ne yonent bi lu mu wax maa ko ko wax loo yonent bi nee na su la teree bàyyil lislaam dafa am yuñ dégle ak yuñ tere yuñ tere nee na bàyyi lépp waxuñ ne la lii dañ kaa tere mais jëf ko luñ tere bàyyi lépp waaye nag lu ma lépp lu ma leen digal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi may wax def leen si man <coughs> yàlla mën na laa tere lu la tere nga bàyyi lépp waaye mën na laa tere lu la tere nga xam fii la yem nga bàyyi ko mais santaane nit mën na dem ba munta matal lépp yàlla na ko def si loo si man wala mu def ba def lu ko yàlla sant waaye nag des na ba léegi parce que yàlla kenn mënu ko topp ba jaam ko dëgg-dëgg jaam yàlla ne man rek kon yàlla jaamu yàlla noo ko war a jaamoo mooy nga jaamoo ko sa kemtulaay kattan soo ko jaamoo sa kemtulaay kattan nag loo mënut bu maqaamu ubudiyya day feeñ nga xam ne lii jaam kese la jaam mënut yàlla gërëm yàlla wax na si alquran ne tudd leen yàlla dégg nga comme lu mu leen xamalee lu ngeen xamutoon دنگ جام سك مينيت سك اير سك وقت سك سكند سك سمن سك اب سي تو سي تطوراتم ميغي خام لوم خاموتون تا جام بي بار وقتو وقتو لاي لاي جولي بار وقتو وقتو لاي جوخ ازكا بار وقتو وقتو لاي اور بار وقتو وقتو لاي اجماك waxtu waxtu lay naafile am na barab yoo xam ne da koy nelaw am na barab yoo xam ne da koy waxtaan am na barab yoo xam ne koy lekk te yow chaque jour chaque minute chaque seconde chaque heure yaa ngi xam kon lu la waroon mooy lan chaque minute chaque seconde nga jaamu ko yàlla parce que dafa laa wax nga tudd ko lu toll nii manam lam yittewoo si xamal la mom yàlla na nga yitté wo ci jaamu yàlla non bu nekkoon ne lam la xamal rek dang koy tuddu yàlla kon yow jambi bi sek segonte nga war nek ci jaamu yàlla parce que sek segonte yàlla mu ngi lay xamal lo xamutoon وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بام ba mu xamee ne moom yàlla jaam bi murug loolu mu ne faskurullaha kama allamakum ma lam takun man yàlla nu ma xiiree si xamal leen ma xamal lépp lu ma leen war a xamal euh, xiir leen si jaama ma noonu deli mënu leen a yegg dëgg-dëgg jaam léegi nag kon foofu lu mu si bëgg tënk rek mooy jaam bi mën na góor góorgóorlu ba bàyyi lu yàlla tere waaye léegi-léegi mën na góor góorgóorlu ba def lu ko yàlla digal mais mën na góorgóorlu ba ñàkkaamatal ñàkk matal gooku ñàkk matal gu ndax ngànt wala ndax lot yàlla nee na foofu la seemukaay jégal naa la kon ñaar moo am ndigle ak tere tere bi yàlla nee na bay lépp ndigle bi nag nee na defal loo si man yàlla diggal na la nga julli lu mu la diggal nga julli taxaw waaye yaa ngi julli waaye mënoo taxaw toog nga mën ndax sa ndigg day métti nee na julleel sa xaal boobu noonu te mooy toog lañ la santoon dëgg dëgg dëgg mooy nga julli taxaw mais xaal bayyi te mooy julli toog loolu mooy lu mu leen digal def leen la ngeen mën dégg yàlla lu mu digle euh, takku soxna gor moom bëgg na takku soxna mais amut alal ragal nañ jalo te muntu muñ te jam rek fi sës mu tak jam lu ko yalla digaloon moy mu tak gawar way jaam mo fi sës kon raaya ba moy tak soxna waye nak gor lañ la digal melokan bi sifa bi dem amoko ko ya ne la comme ko amoko demal si jam. demit demit demit demit bam jeex kon yow jaam bi xamal ne ñaar mu nekk sa kanam ndigle yi ak tere yi tere yi bàyyi lépp njaaloo njaalo la yàlla ne la bàyyi ko bàyyil bàyyi lépp njaalo meddi la bàyyi lépp meddi jëw la bàyyi lépp jëw bokkaale la bàyyi lépp bokkaale bul ne tey dama koy def suba ma koy bàyyi naam déedéet bàyyi lépp ah, benn noonu ñaareel bi mooy yu yu baax yi nga xam ne digal nañ ne ko yàlla ne na def si ba foo si mën a yem nga yem def ko ba mu jeex wala soo ko deful ba mu jeex fa sa kàttan yem man yàlla fa laa la yem loolu yonent bi dafa jàkkaloog saxaaba yi na leen maa nahaytukum anhu fajtanibuhu lépp lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum lépp lu mu leen digal na ngeen si def lu ngeen mën maam na ngeen si lu bu baax ba fa ngeen yem lu tax mu wax lool mu indi sabab bu tax mu wax lool fa innama ahlaka alladina min qablikum kathratu masailihim wa ixtilafihim ala anbiyaihim fa innama ahlaka naka xal na ñi nga xam ne min qablikum njëkk nañ leen lan moo leen alak kathratu masailihim bërik seeni laaj waxtilaafihim ak bërik seeni wuute ala ambiyaayim seen yonent yi yonent yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na lu tax ma ne leen lu ma leen digal na ngeen ko na ngeen si def seen kéemtalaay kattan lu ma leen tere na ngeen bàyyi lépp mooy xeet yi leen jiitu woon te yàlla alag leen dara xalagul leen lu dul bëri laaj gu ñuy laaj seen ak bëri gu wutee gu ñu wuteeg seen yonantu yàlla dafa bindi jaam yi jaam yi war a dox jëm si moom mu nekk yoon boo xam ne mu ngi ko tuddee wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon na ko topp waaye yoon bi nekk na ñëpp ko xam am na ñu ko xam am na ñu ko xamut ña xam nag dem nañ ba yegg dégg ñaka xamul nag demaguñ te xamuñ ko daf leen ne ne wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne dafa dellu si man maanaam koo xam ne xam na sama yoon yàlla nee na na ko topp dégg nga léegi nag ba nga toppee kooku mi ngi dem si yoon bi moo la gën a xam neel tekk nu muut topp si ginnaawam rek moom dana la yeggale dégg mu la yàlla di wax sax laa yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna ku xam ak ku xamul duñ xem mukk yow mi nga xam ne nag xamoo te yaa ngi topp si ginnaaw ko xam bul di wuuteeg moom waaye yow mi nga xam ne xamoo yaa ngi topp si ginnaaw ko xam bul di ko laaj laaj yu bari tànk éeru laaj jotut ku xamut il faut mu laaj dégg léegi nee na xeet yi jiitu te yàlla alag leen ñu si bari lu leen yàlla alagee mooy wutee gu ñu wutee seen yonent bu bari ak seen laaj yu bëri loolu si banu Israil la gën a xiyaasu banu Israil xeet la gi nga xam ne dañoo ñàkk fulla ñàkk fayla ñàkk jom yab yàlla kap yonent bi yàlla yi bon yàlla jéppi leen xas leen rëbb leen xeet googu nga xam ne laaj seeni ak yonantu ñoo si raw si laaj yoo xam ne ñorut amut fay la amut fay lu laaj ak weddi ak laaj ak istihza yéeg gi ak laaj sofantal ak wuuteeg seen yonantu moo tax Euh, keroot ba nga xamee ne Moussa yàlla yónnee ko si banu Israël benn xew-xew am fa mooy benn waxamaane si ñoom gis na ne bàyyi tëxam am na alal te bàyyi tëx gi amul doom léegi grand boobu mi ngi yaakamti bàyyi tëxam gi gaañu mu donn ko parce que moom moo ko waaye nag dee dafa yéex ak moom mu ray ko ba mu ko rayee yóbbu bàyyi bàyyi gi si beneen quartier si beneen koñ bañ yeewoo mu wax waa quartier bi ne yéen ray sama bàyyi tax jox leen ma dee cooli tàkk ñu dem si yàlla Moussa mu leen yonent yàlla Moussa na leen yàlla nee na ngeen ut benn nag si lay àtte bi di feeñee comme que si yonent yàlla lañ dem la leen waroon rek mooy wax la neen nag nañ dem wuti nag ñu laajte ban nag la laaj bi laaj bu ñu laaj moo gën a jafeel mbir mi bañ leen waxee nag rek suñu demoon nag buñ ut baax na waaye bañ laajtee rek sale yàlla gën a taral mbir mi mooy lan Moussa wax leen na leen nag bu ñuy ut du nekk nag bu mag du nekk nag bu du nekk nag bu magee ba ëpp du nekk nag bu ndawee ba ëpp kon bépp nag bi nga xam ne nag bu mag la ba magee ñoom sañuñ kaa laalati sañuñ kaa jënd bépp nag bi nga xam ne dafa ndawee bopp sañu sañuñ kaa jëndati buñ jënd ban nag lañ war a sañ jënd mooy nag bu digg doomu te loolu seen laaj gu bëri guñ laaj musaa moo leen ko yóbbee waaye suñ ba leen musaa waxee jënd leen nag rek suñ jëndoon nag rek nag ñu mën a jënd baax na yemuñ foofu ñu laajal ko beneen laaj ne ko waaw ñun nag bu digg doomu la ñu war a jënd waaye nag bu nu mel bañ laajtee yàlla gën kaa tralaat yàlla ne leen jënd nag bu digg doomu waaye nag nag bu xaw a lay doon safraun faaqiun lawnaha tasurru naadirin nag boo xam ne dafa zone zone gu rafet dégg nga nga xam ne waaye tamit du am melokaan te ku ko gis da nga si maanaam da kontaan ndax rafetam boobu léegi sañatuñ jënd nag bu weex wala nag bu ñuul wala beneen nag bu leen yàlla melal noonu rek lañ war a jënd kon bépp su leen su ñu yemoon sa nag bu digg doom ba bépp nag bu digg doom bi ñu gis rek sañ lañ kaa jënd waaye bañ yàlla ne leen nag bu zone su boobaa sañatuñoo jënd bépp nag bu digg doom déedéet day nag bi dafay digg doom ba pare daa dem mel melokaan bi nga xam ne yàlla melal na ko. ñu ko ne waat seen laaj yi yemuñ foofu waa laajaa Musaa ne ko waaw ñun nag bu digg doom lañu jënd te lii lay doon safraun faqiun lawnuha tasurru eh, naadirin waaye nag bi moom ban métier lay def maanaam la mooy liggéeyam yàlla yokkat rek ne nag bi daat laa zalulun tuthirul arda wala tasqil xarsa nag bi nekkul nagu baykat nag boo xam ne dañ kaa tàggat pour mi bay waaye nekkul nag boo xam ne dañ kaa tàggat pour mi nàndal nag boo xam ne dañ kaa yeew di ko yar bu ñu yemoon seen leen yàlla njëkk wax mooy nag bu digg doom lay doon te loolu làcc moo tax ñuy yóbbu leen foofu yemuñ foofu ñu nag bu zone lay doon yemuñ foofu bés bu ñu yemoon foofu rek bépp nag buñ gis mu melo mu mel melokaan boobu noonu moo xam day bay wala dafay nàndal tool yi sañ sañ nañ kaa jënd mais dañoo laajcaat yàlla ne am nañ nañ dem jëndi nag bu digg doom te nag bu melokaanu melokaanu boo xam ne moom laa leen wax waaye nag euh, du bay maanaam nag bi nekkul di xotti wala mi dem si tool yi waaye nekkul nag boo xam ne dafay nàndal tool yi di dem jëli ay ndox di indi te loolu bis bis bu ñu laajte wutoon même suñ gisee nag bu mel noonu sax. dem euh, di ko jënd te fekk nag bi dañ ka dañ koy lonk machine wala ñu koy takk sareet mi nandalaate sa sañ nañ kaa jënd waaye bañ laajtee leneen yàlla wax ne nag yu mel noonu mën nañ kaa jënd kon luñ mën a jënd nag bu digg doom daal di mel melokaan bu mu wax sànq tamay zone te nag bi dañ koy yeew di ko yar du bay du takk sareet laaj ma leen yóbbee loolu dañoo wër wër wër wër wër wër ba sonn dooga am nag bu mel noonu dafa naa daal di ko jëndee lu lu tax kasratu masaailihim laaj bërig laaj guñ bërig laaj moo tax ñu mel noonu yow mi nga xam ne yaa nekk si ginnaaw sëriñ bàyyi xel loolu bu wax Moussa alayhi salaam ba ko waa banu Israël laajee kan moo ëpp xam-xam mi ne man fekk boobu loolu la yaakaaroon parce que amutoon benn nabi bi eh, dégg nga Euh, boo xam ne yàlla yónni na ko mu toll ak daraja si jamono jooju kon loolu la yaakaaroon yàlla wan ko ne ko am na jaam boo xam ne maa ngi koy xamal loo ne xamoo ko mu yebal ko mu ànd ak Yusa damay ba si géej fekk fa xadar Moussa googu mu bëgg ànd xadar waaye xadir na ko euh, si chartab da ngay éviter laaj yi Moussa lu tax mu dëpp si ànd googu noonu ànd ak xadar mooy laaj yam loonu laaj xadar xadar euh, xadir rey nit rey ab boo xamaane mu ne ko la moo tax nga rey gaal mu ne ko la moo xadir toj euh, fekk kii nii mbir bi jéng di waaj daanu mu jubbanti waat ko tabax ko Moussa commentaire xasee na ko yow mën nañu ànd dëppal yow mu topp si gannaaw sëriñ tamit sa laaj mën naa tax sa laaj yu bari mën naa tax sëriñ bi du la xamal dam la war a xamal lépp lépp parce que xam ne yéen a yelloo amaana gi wala boog ngeen dem ba si kanam nga dëpp si ànd gi parce que yelloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne yéen nit ñi yàlla farataal na seen aj na ngeen aj benn saaba ñoo jug ne ko ndax bépp at la yonent bi noppi mu laajaat ko wala yaate ñetti yoon saxaabi bi ne ko yoon eh, yonent bi ne ko su ma waxoon waaw rek dafay dafay war bépp at kon at bu nekk ñépp dañoo war a aj te mag loolu xajut fa ñaare bi tamit nekkul ne loolu ñëpp ko mën yonent bi ne su ma leen diggalee rek def leen Euh, banu Israël bañ ànd ak Moussa ginnaaw ba Firawna halakoo ba pare yàlla na leen dugg leen bayt maqdis ñu ne inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadxulaha xata yaxruju minha fa in daaxilun duñ si dugg duñ dugg bayt maqdis tànk jabaabire yi génnuñ foofu noonu Eh, yalla na len dugg len musa na len yalla neena ngeen dugg ñom ñu nako dugguñ dugguñ fa fadhab anta wa rabbuka fa qatila inna huna qaidun eh, wutee gañu wutee musa nonu lam waral yalla duggal len ci ngëlëmande go xamné sax nañ ci ñen fukki at si ngëlëmande nek ci ben dik rek ci ben allah suñ demee wër wër wër wër wër wër ba guddi jot suñ xëyaatee rek fekk fañ nekkoon fañ commencé waat kon yow mu ànd ak nabi wala yow mu ànd ak wali wala mu ànd ak sa oustaz inviteel looy wuuteeg euh, sa sëriñ lu bari wala nga koy laaj-laaj yoo xam ne amut fay la soo demee ba masala lënt xamoo ko laaj ko si teggin ak tee te sa yéene na nekk xam rek waaye bu nekk sëriñ bi juum nga gàgganti wala dara même su juumee yow xamal ne xam moo demee defal ni saxaaba ya defoon waxu yonent bi ne ko fa inna lan naqula laka kama qaala banu israila li idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna hauna qaacidun walakin naqulu laka anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma laqatilun waaw duñ la wax la banu israila waxoon yonent yàlla Moussa demal si yow ak sa borom ngeen dugg bayt maqdis ngeen xeex ñun ñu ngi pare waaye dañ lay demal yow sa borom ngeen xeex ñun ñu ngi ànd ak yéen di xeex yéen si taalibe yow mu nekk si roon ab yonantu wala yow mu nekk si roon ak waliyu wala ab sëriñ mel ni niw bu ñuy jàllar bi nga xam ne moom mënulu boppam dara su la laa su la leeralee am masala leeru lacce ko si teggin saxaaba yi def nañ loolu soo amee masala bu la lënt làcce ko saxaaba yi def nañ loolu soo gisee loo xamut laaj ko ko yi def nañ loolu waaye ànd ay charte si teggin te jubloo lu du jubluwoo istikbaaran ngir réeréelu jubluwoo pour gàgganti ko waaw jubluwoo pour wane sa bopp ngir laaj-laaj boo xam ne dañ naan nit ñi dañuy wax ne ah kii moom laajami xóot na déedéet jubluwoo pour laaj ko pour ràññeeku si kanamam sëñ bi ne kii laajam yi daf may maanaam euh, maanaam daf maa neex ay lan laaj ci la ngir xam فإنما فإنما أهلك الذين من قبلكم آه، كثرة مسائلهم واختلافهم واختلافهم على أنبيائهم رواه النيتلين حديث بابا البخاري إمام بخاري مسلم إمام مسلم من أنا أبي هريرة شجر نمسي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخري عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال وهنا أبو هريرة سمعت ديقنا رسول الله ينتي sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mi wax naan maana haytukum lépp lu mu leen maana haytukum lu mu leen tere anhu si moom fajtani bu na ngeen ko teet na ngeen ko bàyyi wa ma amartukum la ma leen digal bi si loolu faatu na ngeen dikkee minhu sa moom mastataatum la ngeen mën fay ne ma ahlaka naka alag na allazina ña nga xam ne min qablikum njëkk nañ leen kasaratu masailihim bërik seeni laaj واختلافهم أكبر سنة وتي على أنبيائهم سنين رواه نتري حديث البخاري إمام البخاري ومسلم إمام مسلم في صحيحيهما سنين يعتي يعني ينون خمني صحيح البخاري أسيان مسلم نريد للإصلاح ما استطعت ما توفق إلا بالله عليه توكلت والإنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته